mu murid ci jamono ma nu maa ko njëkk a kaas ñëpp ci réew mi Sénégal waye concerne tamit euh, yoonu rek li tax mu concerne actualité Sénégal euh dafa am ay xew-xew yu am ci réew ma yo xamne dafa dafa ak mourid gi te man ma di murid mula ak Touba ma dëkk Touba kon donc yaakaar ni dina ci am ay wax tey it mu nekk xew-xew yoo xam ne jàpp naa ne mbooleem ñi ciy wax euh, amu ci kenn ku mu ci war a gën a yeyoo wax ndax mbooleem liñ ñu yëkkati tey di ci wax mi ngi nekkoon entre deux mille quinze ba deux mille ba deux mille vingt man nag yàlla def na deux mille vingt et soloon naa sama mbubb taxaw jàmmaarloo ak kii nga xam ne moo waral wax ji tey muy Cheikh Omar Diagne jàmmaarloo boo xam ne amul kenn koo xam ne yëgul ko woon. Euh, Dana def ben précision nak moy bu kenn bind ci sama vidéo bi ne Cheikh bare ndjay mi ngi défendre Cheikh Omar ndjay wala nga publier ko wala nga def ko ben titre parce que défendre Cheikh Omar ndjay taxout may wax parce que man duma dof te ñakuma jom munuma taxaw ba ñepp kenn waxagut dara ma taxaw ne Cheikh Omar mi baxut ne baxut ba ñepp ne baxut ma doga wañi ko naan baxna lolu sama ndof yëgut fofu Cheikh Omar ni mel ku koy xam ma la ko ñëk xam limi wax sëñ touba bu leelu lu ñaawa ma ko ñëk xam ñëpp ma ko ñëk kaas ñëpp ci réew mi ba koy kaas ak ñaxtu ñi di wax kenn waxul woon waaye dafa am lu am lu tax ma wax li tax may wax nag mooy euh, yoonu murit dañoo baaxoo wut di def dari politique ba barki ki dee mu sëñ Bass Abdou Khadir wax na Ousmane Sonko ne ko mosoo politique yoon donc Macky Sall mi dan politique ci ci dan politique murid gi sax gis nga ne murid di ko djublu yoonu murid dafa nek pas bu sel bu wir bo ñun ñi di def politique sax di wax ci politique ak analyser politique dañuy def luñ man ngir di xàmmeeku suñu talibé waye di xàmmee ko tamit suñu dox activité ci politique musuñu leena bolé boole te mosuñu jaawale donc kon tay buñ doxé bam yagg man ma gis ay nit ño xamne ay politiciens lañ pure dire ñu ŋànk yoonu murit ci jamono jii nu toll fexe ba sol seeni dàll dugg ci kër kilifa yi di leen gëmloo ne dafa am benn menace bu tariixa am di xeex tariixa luy xeex tariixa ko boo kooku boo demee kër sëñ am satu mu sëñ Abdoulaye Lahat wax ko ko ah lim man mooy sol mbubbam ànd ak yow jàpp na ci pas-pasu murit nga nekk boo ko waxee sëriñ Koso Mbàkke mu sëriñ euh, euh, Muntaxa Mbàkke lim man boy juro ma fi nekkal serigne touba kon fepp fu ñuy taxawal luy dolel yoonu mourid da ca wara bokk boko waxe ku melne ne fallu falu gala silla wala serigne bay gay silla ci darul moxti sama way jur bu baax ñoom itam loolu dañ ci nekk waye mbir mi dafa am luma ma ci xam man lo xamne bu Omar Diagne ay waxam maa ko gën xam xana wala bok ñiko ko xam ci la bokk bu politique it ne duma ci jaayil ko te yoonu mourid ci la juddu ci la yaru ci la kon kenn mënu mani manipuler man ngeen a nax nak ab serigne ci politique yeen man ngeen ko baña nak nax ci ci mourid de ah, man ngeen ko nax ci politique waye nak man mënu len ma nax ci politique mënoo len ma nax ci yoonu murid mënoo len ma nax ci mbirum Omar Diagne kon nak dina tok leral ay leral yo xamne len lu ci nek tamit manam lu teggu ci baram la ne li may wax ni manam ni nos mbir mi sëñ mbakem Mbàkkeem sëñ Muntaxa sosut mbir mi sering am satu mbàkke sosul mbir mi ñooñu dama leen ci seppi serigne touba tax ñuy wax ta omar jaañit ci deug deug mirito na ab mourid manam tontu ko comme ni ma ko defe woon parce que bari na ay yo xamantene taxuma juk ma di ci ci wat waye yo ne jaar na fi yu bare bare bare bare yo xamne ne bu fekkon tane ak mourid rek ak tali talibé motax nit ci wax lola jaron juk waye démé ba tay bu nu ne manipulation rek moom la moo am manipulation bi fan la tàmbalee mooy bu nu fàtte ne dafa am benn télé bu nekk Sénégal bu ñuy wax canal Horizon ki ko moom di tubaab bu dëkk fii ci France ñu di ko wax Bolloré defe naa vieux sans Bolloré la tudd moom moo canal Horizon te jàpp naa ne ci lu ñu lu lu ñu déggandi te lu ñu xam sax ci lu bari am ay télé yu bari yu moom ca Sénégal. danañ am télé yo xam ne danañ la wax télé bi euh boloré actionnaire la ci waaye lañ xam ak luñ xamul moy télé ba moko mom barki dem rek wané nañ la sen tv boloré daf leen di jox alal amna animateur bu tok ci sen tv wax lolu bu amé ñi daan liggéey ñom buñ amé milliards milliards jël 75 milliards millions jox état du sénégal jël la ca dess yobu france ba siiru jomay fay ñew jakarlo ak ñom ne leen da ngeen di fay 4 milliards ku ne xamne ne am nañ ak mer buñ meré te ñom ñom mom média sénégal yépp danaka média yépp ñoko mom ci journal ci radio ci télé ba ci ay site internet am seeni activiste am seeni mouride yu sol seen bubu yu gudd te dina ci joxe preuve bu leer nañ ma déglu rek bu ko défé ñoña lañ bëgg fim nekk ni mooy jàmmaaraloog jomaay ne ko wan ko ne ko maa la ëpp doole ci réew mi loola la boloore sol aw dalam nek ci man kenn mënu maa manipuler parce que xamna lu bari ca dëkk ba bokk ba loola amee njëkk nañoo yëkkati aw leetar RFM yëkkati ko ne leetar bii dañoo gàntal yoonu murit ki fi nekkal Serigne tubaa ki yor kàddoom taxaw ne leetar bii concerné wut yoonu murit jàpp naa ne koo xam ne sëñ tubaa tax ngay wax nag bu ñu ne laa lii concerné wul Serigne Touba tab xalifaam wax ko foofu la wax war a jeexee ñu ne wax ji du jeex. daal di demaat ba 2015 2016 2000 nangam jëli ay wax yoo xam ne Cheikh Omar Diagne ko doon wax te ba mu koy wax Serigne Touba mii la ko wax mii nga xam ne mooy way juru sëriñ saali ak sëñ Mourtala la ko Omar Diagne doon wax. Touba la ko doon wax Omar Diagne nii Omar la tuddoon sant Diagne lan moo nekkoon kon ci ñii tey taxaw di tëb di tëb di tëb di dal ba ba Omar Diagne di wax wax ji seen yoon nekku ci ñu dox ba tey Omar Diagne ñu xëy xëy xëy. daal di dem jëli ay vidéo yi 2015 nag dañuy xuloolal sëñ Touba loo xam ne 2015 lañ ko waxoon parce que loolu ñu bëri xamuñu ko mbooleem li ñuy wane fii yëpp 2015 la ko sëñ Touba la ko Omar Diagne waxoon ci yoonu murit man mii ba may jàmmaarloog ñoom ñoom ñu ngi toog parce que booba Serigne Touba mi ñu ko doon wax naqariwu leen waaye booba Bolloré moo méréegul Macky Sall moo méréewu doon Macky Sall booba Bolloré ak Macky Sall ngi ànd activité ay rajoom activité kennam tey nag. li tax wax ji ñu man koo jëli nag di ko doog a naqarlu nag mooy balooree ngi doog a mer kon Serigne Touba ñoru leen dañoo am ay lobby yu nekk ci seen gannaaw di leen joxub xaalis te coow lii ku ne gis na man génnewuma ci ñaar mooy la amoon masaaliku janaan moom génnewuma ci Bart dama koy wax mu leer nañ Bart ak Bougane seen gise boobu ñaaw naan njort lool ci ne moo waral yëngu yi te ku ne xam na keroog gis na Bart ca jumaa ja tombewul noonu nag. ta ku ne gis na bart jamono yi bu se kecio ba fadam de koo ma nga nek di publicité ñaata la génne ñaata la joxe pour lolu ak ñaata la dugal touba pour nit ñi yëngal parce que suma waxé né ñi dañuy wax ñu di len fay amna ci ay preuve yu ma mën a joxe te dinaa leen jox ben preuve ci ceddo morit jox len preuve ci mam mo mbay jox len preuve ci oustaz khadim busa wala imam khadim busa ben ñoom li ñuy def nii dañ ciy fayu ko xaalis te man maa ko wax fi ma ko teg mooy ku ne yëg na bi ma jàppanteek Cheikh Omar Diagne première fois ñu jàppante bi ñu jàppantee damaa njëkk a dugal ab vidéo dal ci kaw Omar fayu defaatu vidéo ma dolliwaat ab vidéo Omar fayu defaatu vidéo ma dolliwaat vidéo vidéo boobu nag yëkkati ko coow li mujj daj senegal gépp nekk coow Mam Mor Mbaye moo ma téléphoné Amor mbay mel mi moma ma téléphoné ne ma ni ma jam man pour man parce que bobu ci bis bima joté ko bis bima ma vidéo bi la moy bima soré mbassé bu maron bi bi ma amor mbay téléphoné ne ma waaw yow jorin de li nga def amna solo yoon yu mom nangam nangam ma defe ne man loolu la may mu ne ma cendo mourid mo la soxla mané ko wa baax na kon mu ne ma nal mi ngi lay wo nang ko jël parce que aw ma numéro mu woo ma ceddo man pour man ceddo damay gërëm ci jappanté bi wala mu di ma xelal né ma nan ci def ni nañ ci def na do daa di may gërëm na ma nak sax waaw ni nga def amna solo nangam daa di né ma khadim bu sa docteur nga laa soxla mané ko khadim bu sa docteur mané ma waaw ñu jampal ko lool nak soxla gi ma ko légui nañ ma may mu né déedéet mu khadim bu sa nga yof ma téléphoné khadim bu sañ ma jël numéro khadim bu ci ceddo téléphoné khadim bu sa ko ndax man na ma ba ëlëk mu né mu ta mbubu maron moom ma mau kérok mom la sol dem wuy di xaadim bu sa kërëm ca yof yof la ko fekk ci busuk étage abdou baaxe bu sa magam fa la ko fekk kérok ño rérando du wéddi limay wax bama ma ab taxi la jël and ak ñu wax fallu ñaan bi nu nu lañ fa togon firir bu jën ñu lek ba nopi ñi da xaarim bu sa na ko ñepp may goneem ya nekkon ci saal ba ak magam joju Abdou Baaxe Bousso ak fallu ñaan ñoom ñep genn biñu ñu khadim bu sene man ndax yow da na ndax nag ma may enregistrer buma waxé ak yow wala doma ma enregistré mit ko man Xaadim mosuma enregistrer nit te duma ma nit ci aduna mu ne ma kon dal li gëna dal xel moy nan joxante téléphone mu jël ñaari téléphone yi tek né kon xam nga ne am lu ma bëgg wax lo xamné bëggul mu dem fenn moo tax duma ko ko génneel waaye lam ma doon wax mooy mbirum nan fexe ba am weccat ci lii moom xaadim bu te du ko weddi teg ma ci aw yoon ngir am ñu ma bëgg a yóbbu ñu joxee dara ba ma ko waxee ci yara ak teggin ma jox ko respect ne ko waaw loolu day dinaa ci xalaat man ba ma ko waxee dinaa ci xalaat nu ànd di wàcc di ñibbi mu may gunge bi nu wàccee ci suuf mu gis ne man taxi laa gaare mu ne kon sëñ Baara yow amagoo oto man am naa oto mais dama ko ne waaw non amaguma oto mu ne ma waaw daal di may joxañ Mercedes bu ñuulam boobu ne ma oto bee de man nga koo am ci yëf yi man nga ko cee am ma ne ko waa baax na baal ba ma yegg ba xalaat rek mu tàggu ma sax ne day bëgg dem Israël ba mu demee ma àgg wóowatuma leen déggut ma woowuma leen déggut ma ba tey jii kon ñett ñii man wóor na ma ne. banu seené ma nek ak Omar Diagne di jàmmarloo dañu jàppoon ne amul kenn kuy wax ta seigne Touba tax ku ne sa poosa tax ngay wax ñu téléphoné ma bëggon ma business lo ci mbirum seigne Touba man sama pas-pas dong nga taxoon may wax seigne Touba taxoon may wax man bayi len ci bu nu doxaatee ba tay ñom ñett nu andat sol yoonu mourid wépp ci benn mbedd mo xam gis nga khadim bousa ma nga taxaw naan léegi nañ ko ray bëgg indi ay fitna seigne muntaha nim sedde nim baxé ayam gi ngeen bëgg nek di ay ray nit bëgg ko làq ci yoonu sëñ Tuubaa bi te mu wóor ma ne ay businessman ngeen ay lobby ay lekkatu xaalis ngeen yoo xam ne moo nekk ci seen gannaaw te lii ma wax ceddo du ko weddi maam Mor Mbaye du ko weddi man samay wax day leer nañ ay tur lay tudd xaadim bu sa imam du ko weddi Abdou Baaxe bu sa magam keroog ñoo reerandoo fa la ko fekk fan lu ñaan laa àndaloon sama bone sama sama sama sama sama àndal kaba doon andal noonu la demee bi loolu amee kon ñii man wóor na ma wóoral yàlla sëriñ tuubaa taxut ñuy wax kenn taxut ñuy wax te lii firndeel ne sëriñ tuubaa taxut ñuy wax Omar Diagne gaa lu ne wax na ko si yoonu murid man bu ma demee ba mën a ànd ak moom ñu ànd boo ko gis-gis ci politique ma futti ko fàtte lépp taxaw di jàmmarloo moom parce que dafa laaloon màggalu Touba dafa laal màggalu Touba ma ne ko nag màggalu Touba moom kenn du ko laal Deng, ñu taxaw jamar jàmmarloog mom, mu dëggal boppam ma deggal sama bop ñu jàmmarloo aduna yépp yëg nañ ko waaye lii firndeel ni ñom muy muy mu du bu sa jeng dinaa ñëw ci mom muy euh, Mam Mor mbay muy ciado mourid sadiq muy euh, Fallu fal mbawor momu di wax gis na ko muy muy wax moom itam gëmul dara du dara Fallu mbawor momu suñ doon dara li tax ma wax duñ dara moy cheikh tiam limi yak yono murid Omar Diagne ñimi wula wax asaka ja Cheikh saga saaga ndey na boole na boole ku sant Mbàkke tifaare len di saga Mbàkke Mbàkke yu jigéen yi wax ne Baye fali danaka ay mbam gonk lañ waxna fi ne ta loolu man nañ ko ci pelant ta dana ci tok dana ci dana ci danaa ci dox inshallah parce que waxna ne serignu daara yi ñoy formé gor jigéen yi moko moo saga wulin saga wóolil jinne saga nako Cheikh tiam ñeme wula dem fenn ma nga laqatu kër modou bousa jang laqatu ci fallu mbawor laqatu ci ñom mamor mbay ak ñom ceddo mourid bu ngeen doon ay mourid salih du ngeen and ak cheikh cham di wax dara parce que lenn lu graw li ngeen koy def moy nit bu fekke dina mëna nek bitim rew taal say iphone di saga serigne si di saga tarixa di saga pas passu nit ñi sa bu démé ba bëgg ñibbi sénégal wut wut sërite bu doon rek ñibbisi ngeen intégré waat ko ci nit ñi muy ànd ak ñoom vraiment vraiment loolu bu ngeen ko dëggalee kon yoonu murit crédibilité am dana dem parce que nit ak noo mën a mel man de Omar Diagne li des ci samay noy du jaxasoo teeg moom du ma jaxasoo moom. ndax parce que nit dafa am fu ngeen di yegg da ngaa war a dañ ko war a sepp ci société bi xam ne kii même buñ ko mayee jàmm sax kenn wër ta jaxasoo moom ndax mëtut a jaxasoo. waaye yéen ko indi nag vacances si na di ànd ak yéen ma nga masaalikul jinaan keroog bi mu ba sa jang di wuy ji di wuy ji di wuy ji di wuy ji pelantam moo Seex Caam ànd wax na ba tudd ko ne Seex Caam mii te Modou sa Dieng moo la gën a xam ne bari ki démb Seex Caam li mu wax li ci gën a tuuti mooy képp koo xam ne ab marabu nga ci senegal doomeram nga wax ne nañ dajale alal si faay tariixa yi ñu jóge fi bi fi problème ngabu bobu amé sering bobu sering ngabu duma ko tuddat lam doon def mune li, yena ko xamut waye mbacke mbacke yep ni lañuy def di ay wax yu ñaaw yo xam ne ku serigne Touba jeexital ci sa xol dara kooku wëratoo ko xol ngeen and ak mom ne yeen mom ngeen di andal di xex Omar Diagne bu kamar Omar Diagne buñu jëlé Omar Diagne tek ci balance tek Cheikh tiam ci balance normalement yeen waru leen wax ak Omar Diagne su ngeen dé duma duma leen Cheikh tiam mais ngeen and ak mom parce que dafa yorop xaalis jogé amerique serigne Touba ñuru leen xam ngeen ne ma jóge ci Moustapha Diakhaté lan la waxut yoonu mu murid bi ci gën a ndaw mooy taxaw na fii mën a sëñ Muntaxa problème rakk la am amut rakk ju baax ba ma koy tontu ne ko yow xaj moo la gënal sab rakk la ma ko tontu ñëpp dégg nañu bay mbay géey si la doo nga ko tontu ak man ci Sénégal ba mu daj Cheikh Thiam doo gis kenn di ko tontu ci ñoom ceddo murid parce que benn affaire la mooy ñoo bokk appartenance politique Cheikh tiam APR la bokku mustafa Diakhaté APR la bokk Thierno Mourid APR la bokku mustafa euh, euh, euh, nu mu tuddati Fallou Mbawar APR la bokku Khadim Boussa APR la bokku kon ñom ño bokku seen APR bo saga Serigne Touba ak saaga njabootu Serigne Touba xass yo no Mourid amul problème parce que ño bokku sun APR lolu moy tapale lolu moy ay tapale yu ma gis mu leer nañ ci samay beut ma diko wax gis na nak ceddo murit saytaane ne ma bind liste mom ceddoo kenn mënut a ni ne ab politicien la bu mag yàgg bañ sonk di ko wër fu ne Fallou Fall Mbawar politicien bu mag la bu yàgg bañ Sonko dem ba bañ nga tëyatu ko sax di ko wër fu ne Xaadim Busa politicien bu mag la bu jege Marème Faye yàgg yàgg bañ Sonko di ko wër fu ne. Euh, Cheikh Thiam politicien bu bañ Sonko la Moustapha Diakhaté Mbay Peex amadu Ba lay àndal ah. Euh, nu mu tuddati com euh, commissaire Kayta ah moom ci la bokk nga jëlaat tey euh, nu mu tuddati maanaam sëñ bu Mbàkke moom sëñ Cheikh Assou Faye nga xam ne bu fekkente ne mag Amadou Sall moom sama sëriñ la sax man bëgguma xulóog ab sëriñ moom man mbàkke mbàkke yi boo gisee bi may bind dugalul ma leen ci sax mooy am na xorma bu ma leen di jox boo xam ne bëgguma koo teggi mais dinaa leeral tuuti rek. Amadou Sall bu amee benn nit bu mu ni àndal nga xam ne duñ tàqalikoo mooy bu Mbacke dëkk Daaru Muxti du doomi sëñ Cheikh Assou fay moom maam Thierno Ibrahima Fati moom moom yi mi ngi ci biir mi ngi ci biir jataay bi démb ma nga woon ca ndaje ma Sidi Mbacke mu sëñ Ahmadou maxtar fii la taxawoon di lu ne daj na ko ci Macky Sall pour mu def troisième mandat ñaari Mbàkke Mbàkke yooyu ku ci nekk benn bokk yaakaar nga bokk soo ci doolee Muudu Mbàkkeem Baara Doli mii Muudu Mbàkkeem sëñ Abdou Baara Doli sëñ sëñ Baara dooli Mbàkke Muudu Mbàkke magi Abdou Baara Doli député laay wax soo ko ci doolee moom itam ñëpp xam nañ ak bokkam benn bokk yaakaar léegi ñii ñii dañoo ñii dañoo as orchestré murid ji fukki nit ak juróom yoo xam ne amu ci kenn koo xam ne démb ak bërki démb ci ci Macky Sall nga nekk bañ Ousmane Sonko di xeex ci troisième mandat amut léegi nag ngeen sol seenu dàll na da ngeen yëngal yoonu murid man nag li ma naqari mooy ñii dañuy politique loolu leer na nañ bi ci des mooy ñii ni ñuy politique amu ci kenn koo xam ne am ngay nit da ngeen di tontu da ngeen di tontu Omar Diagne dem leen ci dem leen dem leen ci dem leen ci micro dem leen ci plateau yi yéen leer na leen ni amu leen nit. Ceddo Murit xam na ne kenn dégluwu ko amuti nit bu wootee kenn du ko wuy ji Cheikh Thiam la ko gën a xam Moodu bu sa janga la ko gën a xam moo ci dàq fen moom dinaa ñëw ci moom. dégg nga moo la gën a xam ne bu woote woon na ñëw leen fekk ma fii juróomi nit duñ fa ñëw ñu ne awaa ah léegi nag fan la ñuy dem ñu ne masaalikul jinaan buñ fa demee murit yaa nga fa ta ñoom sëñ tubaa neex nañ cee nax suñ demee rek ñu ne daa am koy xeex sëñ tubaa dañuy mars daa di sol seen i grand bu mu dugg sa jàng ba masaalikul ubbeeg léegi fa kañ la fa mas a ñëw mu solu grand bam ñëw taxaw su ko defee ñu utiliser image su murit yi wane ne ñoom dañoo am doole ci dëkk bi dañoo am mbooloo pour naxe ko ab tubaab bu leen jox dara Baye Mbaye Guèye Sylla maa ngi koy seedeel yàlla ne man jàpp murit laa ko jàppee boo xam ne xaw ma lenn lu ko rax ci sëñ Tuubaa waaye lii ñu la dugal fam tàmbalee xamoo ko te fam yi yamit xamoo ko te ba bi te temps dinañu àttee bàyyi ngànna sëñ ngànna mesere temps dina ma àtteeg yow sëriñ Tuubaa la ñor sëriñ Fàllu Mbàkke bu sa maaram sëñ laat bu sa maaram la xaw ma sëñ Fàllu bu sa maaram waxuma ko kooku sama morooma waaye ku gëm sëñ Tuubaa la te ku diiñ la Ngana Mesere waxuma ko waxuma Baye Fallou Galassi la waxuma ñooñu ñooñu dañ leen a woo rek ci ne am na luy xew loo xam ne Serigne Touba lañ koy defal dañuy kaas mi ngi mel ne ma doon defi jàng woo leen ci. te kenn ku nekk ci ñoom yaa ngi seetlu li lay wan ne ndajama politique la ba fa Ngana jógee mi ngi leeral ne moom politique andiwu ko fi Fallou Baye Baye Mbaye Guèye Sylla ma ngay leeral ne man politique andiwu ma fi. Baye Fallou Gala Sylla jël na micro bi di leeral na ñun politique andiwuñ fi te ci biir ndaje mi am na ku jóg taxaw ku bokk ci Benno Bokk Yaakaar daan ne waaw bu leen raay mbir mi mbir mi Sonko la ak Jomaay lu Omar Diagne ñu jël Baye Fallou Baye Fallou Baye Baye Fallou Gala Sylla femm ko ne ko ñun fa Jomaay ak Sonko andiwuñ fi kon donc lan moo tax ñu woote ndaje moo xam ne Serigne tuubaa lañ ko wooteel te ku fa jógee di leeral naan man politique kon kay ndaje ma rax na politique léegi nag ndaje mu rax politique moomu nga xam ne ñi koy woote cohérence bi nekk ci seen diggante tey boo ne woon ndax dañoo bëgg a dàq Omar Diagne wala lu ngeen bëgg kenn xamut la la gaa yi bëgg ci ndaje mi amul kenn ku la kum liir ku ku dara lere sa bopp lu dul rek Serigne Touba moom dafa dafa complexe dafa xam loo xam ne koo ci woo mu wuy si la ñu utiliser kër Serigne Touba. loolu nag moo ma naqari ba ca kanamu suñ borom parce que nag du benn yoon ubbi ngeen kër sëñ tubaa gi mitin fa ubbi ngeen kër sëñ tubaa gi mitinal fa Amadou Ba ubbi ngeen kër sëñ tubaa gi tey jii ne da ngeen fay woote loo xamante ne leer leen leeral yàlla wallahi wal quraan al asim sëñ tubaa nekkut ci gannaaw yàlla nekkut ci gannaaw da ngeen di politique su bolooree mirutoon médias yi nekk ci jafe-jafe législatif yi jege du ngeen taxaw di tal sax waxi Omar Diagne tey waxu ba koy tas ëllëg parce que Moustapha Diakhaté wax na fii ne yoonu murit kenn baaxu fa 1927 lu gëj a defaru Touba nga xam ne dafa weddi suñu sëriñ si as suñ bàyyi lu ngeen ko wax lan moo tax Moustapha Diakhaté buy wax ci Serigne Touba moom lu ko neex lay wax te kenn du ko marsal kenn du ko daganal ñëpp daganal ko Cheikh Baara daal la ciy nekk di tontu ak laat bu maaram ak ak ak Baye Mbaye la yéen politiciens yi yëpp yéen ñii di wax ay ceddo murit yëpp ngeen lem seen i génn pat lan la yoonu murit dajut ci yoonu Macky digganteem ak Macky Sall tey jii ngeen bëgg fee nekk ngànk yoon wi ba pare na kenn di wax ceddo murit di fenkat boo xam ne maa ngi bind sama liste def ko ci. Facebook mu jël list bi pour wax la na ñii dañoo yàpp Serigne Touba jël liste bi ci boppam daal di ne man daal di ne naa ci dolliwaat sëñ Mam Morom sëñ Fallou naa ci dolli sëñ Amsatum sëñ Abdoulaat naa ci dolli sëñ diw sëñ diw. nga xam ne moom gis na ne man su ma ko waxee ne ko yow politicien nga dama cee war a dolli sëñ Amsatum sëñ Abdoulaat man sëñ Amsa dama ko ñëwee wax politicien parce que xam naa ko. démb ak bëri ci démb ba fi Macky Sall yi nekk yor xaalis yor lépp te réewut daa taxawoon nekk ci lim nekk. kon jomay du ñew di soppi sonko du ñew di soppi xam nañ ko bay mbey gey sil la xam nañ ko xam nañ ñepp mais yeen ñi nga xam ne yéen dem dajalo ci kër serigne ci di wër di fenn la bëgg ngeen dakkal ko modou bu sa jeng dégg na ko mu naan muy génne ab lii aw kayit naan li moy sama sama sama sama certificat xam sama certificat lay wone xam lu mi wone ah dama lay wax ne buma ñewé dina défar defar kayit wu mel nga défar yónnee lolu taxut ñi wax modou man dama la wax ne sa nday fati mbake say lo mi ko jur sama lo ndeyloo lo mi ko jur ño bokk bay mënoo ma reer ci Touba ño bokk ben dekk xamna la bu wër wat na ko ci Serigne Touba modou Bosa Jang mëso dugg ci ben école du arab du français ta ma ngi lay wax ne bala nga may génneel ay keuyit amna lu gëna gaaw wax ma ñett nit ño xamne yena yena dara wala yena bokkon ak classe di jang ba ngay joggé daara ja am nga kim magum jëm nga dëgg la nag def ngay cours de soir ci sama kanam xam naa ko waaye dama laa dégg nga ne yow yaa raw jomaay yaa raw Sonko yaa ko wax ne da am mësta ci tubaab maa la dégg maa la wax ne amoo mësta ci tubaab amoo mësta ci wolof amoo mësta ci naar amoo dara loo xam alxuraan daal jàng nga ko te mukkulug boo waxee ne danga am benn certificat ci fii ci Sénégal waxoo dëgg laa la wax. te gennel ma certificat français ma perte la plainte parce que yi ngay def ni dafa yomb al jaamium islami mustawa yow ne nga léegi ci ban ci ban ci ban ci ban ci ban branche nga amé nga amé nga amé doctorat lan lan doctorat ci lan nga am yow docteur bu déggut arab déggut français sa français yi ngay wax di lox sa làmmiñu kemat xamul li ngay wax ñepp xam nañu ne dara complexe do nga la japp ak bëgg naxaté ngay wër di tappale nu may wax mu naan ab ab la mën naa ko wat ci sëñ Tuubaa boo ma waxee ñaar ñoo bokkal ekool ñoo jàngandool ñu ne maa ngi mu doo bokkoon ban yi ma ñëw jëblu ci yow amooy taalibe amoo daaray alxuraan amoo màggal amoo juboo woog say bokk am ngay bokk nag waaye juboo woog ñoom juboo woog dégg daara amoo ko coow rek ngay def ak ak wër di tappale Omar Diagne sax boo ko seetee moo la tane ndax moom fekkut sëñ tubaa mu koy utiliser yéen yéen laa wax ñi may waxal nag xam naa leen ceddo murit saadix yow laay waxal xaadim bu sa imaam yaw laay waxal maam Mor Mbaay maa ngi leen di dégg ba ngeen wedde na yéen ma waroon woolu di ma jéem a wutloo xaalis ci coowul Omar Diagne man nag li ma gëm te man koo waat mooy coowul Omar Diagne ku ma ci wutloo xaalis kon yow boo ko jekkoo wut ci xaalis serigne touba nak duma nangu kenn diko wutep khalis su doon da ngay na tok fa ngeen tok di wax suma nexé wax suma nexé baña wax waye keur serigne touba gi ngeen ubbi taxaw ca nan da ngay di defi conférence de presse bo xamné la ko eumbu lepp politique la lola ma nakari lola lay wax lola lay kaas keur serigne touba jumaay serigne touba jee ngeen taxaw and ak lamine dias nek fa nan da ngay di politique di manifester wu ci bir jumaaji anam mouride ak manifester wu kan ngeen kan ngeen ci kan ngeen ci roy kan ngeen roy ci manifesté wu kan moo ma sa taxaw jumaay sañ tubaa jooju di fa wax lu dul sañ tubaa bay manifesté wu xanaa lu tey la mu di am masa am lu leen naqari nga taxaw naan da ngay manifester ñu ne looy manifester nga naan daa am lu ñu waxoon sëñ tubaa 2015 lu tax waxoo ko te ba ko nit ñi wax yéen lu ngeen ci am ngeen doon wut bu leen ma tax wax benn mbàkke mbàkke nag waxuma ak moom man ab taalibe laa bu leer nañ amul kenn koy laam-laamee sama taalibe waxuma ak benn cheikh waxuma kenn koo xam ne li ngay def Serigne Touba tax nga di ko def. waaye ñii laqatu bëgg taal Sénégal bëgg jaar ci li woote ay menace de mort naan naan bakkanu diw dagan na loolu procureur dégg na ko maa ngi koy déglu ba xam waaye ñooñu moom du leen bàyyi te lii ngeen di def man du ma ko nangu de fu lu ngeen ci fu mu leen jaral dana ma ko jaral mag yéen a moomu leen nit ñi dégg nga Omar Diagne nag défendre ko tey bu ma ko doon défendre dinaa.